فديت امام استاذ الحاج با مختار استاذ تي لوم لي لاج موي كو بغا تاخاليكو موي بكار نان غاي ديف استاذ منصور دما لي ديغال لي امام شافعي واخون امام شافعي دا فا واخني دما دون وير نان لاي ديف با من باي بكار نينا واي لولو مانكو فك تي جولي يور يور جولي يور يور بيمو كومانسي جولي يور يور نينا تي لاكو يالا تخالك بكار مونوتول ديف بكار كون ماغي لي ديغال képp koo xam ne dafa bëgg a teqali ko bàkkaar bàkkaar te ticc dootu ko mën a def nuy julli yoor yoor nag mi ngi tàmbalee ci ñaari rakka ba ci ñeenti rakka ba ci juróom benni rakka ba ci juróom ñetti rakka falayam waaye maa ngi lay digal sooy def yoor yoor fexeel ba di jàng fatiha ba mu jeex ci rakka bu njëkk bi ak wadduha rakka bu ñaareel bi ngay jàng fatiha ak alam nashara su dee ñaar rakka ngay def oustaz Mansour jërëjëf fajati imam oustaz alhaaj Pape Makhtar oustaz ku nekk xam na ni bàmmal xat na raglu na lëndëm na ku mujj bëgg a mucc ci xataay gi ak lëndamaay bi ak weetaay bi nooy def imam dafa wax ni bëggee mucc ci lëndamaayu bàmmeel damay jàng alquran damay jàng alquran jàng alquran kon képp koo xam ni bëgg nga mucc ci lëndamaayu bàmmeel ak bammel dil jàng alquranul karim rawatina par guddi soko mokale ngay jàng suratul mulki muy tabaraka alladi bi yadihi mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir bamu jeex soko mokol lu mën ci alquran rek jàngal rawatina guddi jàngal quran bëccëg baax baxna jàng ko guddi baxna na jaamu yàlla guddi dafa upp doole bu bëccëg kon nag ngay jàng alquran par guddi la nga mën ndax faqra'u ma tayassara minhu jàng leen li jàppandi ci seen dënd loo ci jàng rek am na solo baax na soo koy def guddi dalay teqaleeg lëndmaa yu bàmmeel ak wéetaa yu bàmmeel jërëjëf fajarti imam oustaz alhaaji Pape Makhtar oustaz ku nekk xam na ni siraat ak ni ko borom xam-xam yi définir ku bëgg a noppalu wala mu yomb la nga jéggi siraat nooy def Mansour soo bëggee sa jéggi siraat jàppandi bari looy woor. bari looy woor. Mhm. kooru farata bu ñëwee na nga woor waaye gannaaw kooru farata gi bu jàllee loo ci mën a woor ci kooru gàttango yi altine alxamis arafa nisfu shaaban ashora tashoa yooyu nga koy woor dafay tax ëllëg sooy jéggi siraat mhm. sa jéggi siraat yomb ak saraxe wala ngay saraxe lu mu tuuti tuuti sarax nga koy def loolu day tax jàmm bi suy jéggi siraat jéggi gi muy siraat daf koy yomb oustaz Mansour. jërëjëf Fadil Imam oustaz Alhaji Pape Makhtar oustaz euh, ku euh, ëllëg yowmal qiyaama ku nekk dégg na niñ ko waxee nga xam ne dañuy wàccee jant bi ba mu tiim yuur yi. Mhm. ak tàngaay boobu ñaqaay boobu ku ci bëgg a mucc ci tàngoor woowu nooy def. soo ci bëggee mucc fexeel ba ànd ak ñu baax ñi. soo ci fexeel ba ànd ak ñu baax ñi maanaam sopp nit ñu baax ñi. sopp nit ñu baax ñi mm-hmm. su ma nit ñu baax ñi gannaaw yonent bi ak saxaaba yi mooy sunu mag ñu sell ñu tedd ñu nekk fii ku mel ni Cheikh Al ku mel ni Cheikh Al ku mel ni maam Abdoulaye Niass mm-hmm. ku mel ni maam xalifa mag ñu tedd ñu sell ñooñu ak yeneen mag ñi mel ni ñoom mm-hmm. te tudduma leen fexeel ba sopp ñooñu ci sa xol ànd ak ñooñu ñooñu soo leen soppee عندك نيوم اللي يوم القيام يلا دلي كرل تسوف كبارو عرش نخ المرء ما أمن أحب سولين بجي تنيوم يبجي صلى الله عليه وسلم فصلى الله عليه وسلم تخاو ني تخاو فا تنيوم فنيو تخاو نغا تخاو فا كون منصور كو بجي مجي تنغا يوم القيام فخيل بسو بني نيوني تموي مغني باخني أستاذ منصور